mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñi nga xam ne ñoo toog di seetaan seen programme bu mag bi di waxtaanu koor ci télévision bu mag bi di ay Africa TV noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara tabaarakallahu di leen ndokkeele ci guddi yu tedd yi ñu nekk di jiital ci nuyoo bi tabaarakallahu kilifa diine yu ci Sénégambia gi di si jiital nag sunu xalifa Serigne Babacar ci Mansour ak mboolem lu Seydal Haaji malik njaboote ndax ñoom ñooy sunuy tabaarakallahu naanu waay di nayu sama xalifa waajur di sam soppe Cheikh Seyd Mouhamadinil Kabir ak mboolem lu baabu si se njaboote tabarakallahu lamboo nuyoo bi rek ci képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah haj babacar di la nuyu di la ziyaara tabarakallahu nga xam ne sama soppe nga sama bara droit nga waaye di nuyu sama broda sama soppe haj lamin borom ay africa tv di ko ñaan yàlla gën ko jàppale di nayu personnel bu nekk ci kër gi yëpp ndax njëkkanteeg temps bi waaye di nuyu samay technicien tabaarakallaahu nga xam ne ñoo nekk ci caméra bi ba lépp rafet ku ci mel ni xaj Moussa tabaarakallaahu xaj Basina ak Boubacar di leen ziyaara bu baax di leen masawu ci coono yi ndax fan yi moom sonn nañ lool su ko defee mbokku ñi ñëwaat ci sunu waxtaanu koor ma digoon la incha allahu ne soonu toppee lépp lu aju ci koor daan ci waxtaan ak yow waaye bul fàtte maa ngi woon ci ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina la wax na koor ñaata façon koor moo am ci lislaam ca sunna ga am na ci lislaam koor goo xam ne koorug sunna la xaj Babacar ñu ngi si baatu siyaam tey incha allah koorug sunna ku la ko laaj d'abord lan mooy sunna borom maraaqi yu suud day wax ne wa sunnatun ma ahmadun qad waasaba alayhi wa zuhuru fihi wajaba nee na sunna mooy loo xam ne sayduna muhammad takkoo woon doon ko def ànd def gi mu di ko feeñal ñëpp di ko gis laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mooy sunnaam wa laysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabian gis nga sunnatal muxtaari tëgtani mi yal na yàlla fay si xaj maalik yal na yàlla julli ci sayduna muhammad loolu mooy sunna léegi nag kooruk sunna ci lislaam mooy yawmul ashura Mustafa dafa jógee Màkka ñëw Madina fekk yahud yi di woor ashura mooy tamxarit fukkeelu fan bi mu ñëw ne waaw lu tax ngeen di woor bés bii banu xurayza ak banu nadir ñu ne ko bis bii kat la yàlla muccale woon yonent yàlla Muusa mu ànd ak sunu maam ya ca noon bu mag ba muy firawna ñu di ko woor nag pour santale Moussa yàlla yonent bi na leen nahnu awla minkum bi Moussa ñun kat ñoo leen gën a yeey ci yonent yàlla Moussa ndax Moussa sunu mbokk la daal di ko commencé woor moom yonent bi sahaba yi di ko woor ma tax moo jiitu woor nañ ko un an ci deuxième année bi ci la koor gi ñuy wax wàcc yonentu nag tabaarakallaahu woor na ko juróom-ñeenti at mooy nine years bi mu toogee nag ba atam bu mujj mu woor ko am ñu ñëw na ko yonent bi dégg naa waa Madine am ñu lay jëw yonent bi na leen luy jëw gi ñu ne ko yow daal da ngay toppandoor yahuudi ndax yahuudi ñooy woor bis bii nga ñëw di ko woor ce que kon ñoom jàppuñ ne yow da ngay dëggal si luñ nekk yonent bi na leen déedéet na leen waaye incha allah déwén su ma fi fekkee damay woor taasuwaa mooy juróom-ñeenteelu fan bi woor fukkeelu fan bi ndax ma wuuteeg ñoom yàlla dogal balaa déwén mu daal di wuyu ji boroomam moo tax ñi bëgg yow jullit bul woo ashura yem ci mais na nga war taasua doo ko war ashura benn bi sunnatul fi'liya la mooy ashura bi benn bi sunnatul qawliya la wax na ko waaye jotul ko def kon soo ko defee mottalil nga ko yéeneem su ko defee loolu mooy kooruk sunna ñi bëgg yow julit bu tam xarit jotee juróom-ñeenteelu fan bi ak fukkeelu fan bi nga daal di ko woor beneen koor mooy koor gi ñu tuddee kooruk manduub ci lislaam am na koor yoo xam ne dañ koo sopp xaj Babacar bu ci njëkk mooy weer wu ne nga woor ñetti fan soo defee weer wu ne nga woor ñetti fan su at mi matee dafa mel ni woor nga at mi yëpp alquran la man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaliha yàlla ne man jaa man gi siixatul umum la du mu safaaka de képp kuy jullit ku fexe ba defal ma benn tayaaba yàlla nee na jomb na may def nu gaa yi def ñu waxaale weer 5000 weer wi dee ma jox la 5000 yàlla nee na kooku ku ku amul la koy def wala ku tabewul waaye man yàlla soo ma joxee benn fukk laa lay fay waaw léegi weer moom gën ngaa bëri waxuma nag tubaab bi waxuma milaadiya mais hijiriya muy weeru sëriñ moom gën ngaa bëri fane weeri fan la gën gaa tuuti mën na nekk ñaar fukk ak juróom-ñett ñaar fukk ak juróom-ñeent am na ñu weddi ñaar fukk ak juróom-ñett waaye sama sëriñ Seydi Hajj Maalik daf ci bind xasida na weer mën naa nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett yàlla ko yàlla fay kon gis nga weer wu ne soo waree ñett mel na ni benn mu fay la fukk beneen mu fay la fukk beneen kon da ngay am fan weeri fan soo ko defee ba at mi mat mu mel ni war nga at mi yëpp kon kooku man duub la moo tax Abu Hurayra ku baax la yonentoo ko tuddee baayu muus mi ndax fu mu toll dana am benn mbuus mu hurayra to tasxiiru hirru la muus soo ko tasxiiree lañ koy tasxiiree moo tax yonentu doon ko wooyee baayu muus mi ndax fu mu day bokk ab muus abu hurayra moo ne sama xarit bi moo ma dénk nee ne weer wu ne naa woor ñetti fan ndax su at mi mate ma mel ni ko woor at waaye sama xarit bi di Seydina Muhammad moo ma dénk ne fu yoor yor jote naa julli donte ñaari rakaa la ndax ëllëg aljanna am na benn asalem yaakaar naa paradise la ko gambien yi di wax am na benn paradise bu fa nekk boo xam ne ku dul julli yor-yor doo fa dugg bañ ko laajee yonent bi nag mu ne yor-yor mu ngi commencé nine ten eleven ba toylif fu toylif jotee rek yor-yor jeex na kon tri awas yi nga julli si donte ñaari raka la yonent bi na ko chaque jour day ko def lu ci gën a bëri nag mooy eight raka mooy juróom-ñetti raka su ko defee mu ne yonent bi tamit dénk na ma nee ne balaa maa tëdd. naa juli witar witar mooy benn rakaa boo xam ne fatiha ngay jàng lixlaas falaqi ak naasi kon gis nga koor googu lu ñu sopp la su doon sunna yonent bi da koy def feeñal ko ñetteel bi mooy chaabaan chaabaan mooy weer bii ñu nekk olof di ko tuddee weeru baraxlu yonentu moo ne rajab weeru yàlla la chaabaan sama weer la weeru koor yéen sama xeet yéen a ko moom moo tax weeru yàlla ku yeboo góorgóorlu ci Chaabaan weeru yonent bi la ko yeboo góor gi moo tax yonentu Aysa bañ ko laajee nee na yonentu lu mu daan woor Chaabaan amul benn weer bu mu daan ko am nañu am na riwaaya boo xam ne Chaabaan yëpp daka daan woor waaye nag sooy woor Chaabaan bañ ne suba la weer wi di feeñ bul woor bis boobu dañoo bëgg nga dagg mu nekk yow mu chakku mooy bisu sikk sàkk bis boob dañoo sib ko woor daan ci ñëw ci kanam incha allah kon su ko defee boobu ci ñu sopp la bokk na ci taxawaayu arafa kuy aj màkka su demee arafa buus boobu nga xam ne la ñuy taxaw ca kaw doj ba yow mi nga xam ne yaa ngi Gàmbi wala yaa ngi Sénégal dañoo bëgg jour ba nga ñàkkaa woor lu tax mooy arafa dafa bokk ci buntu asamaan yi asamaan lu bari buntu la fa iza nufiqa fi suuri nam ko waxee ca suratul amma ya amma yatasaaluna an nabai l adim alladi hum fihi muxtalifun kalla sa yalamun summa kalla sa yalamun alam najal al arda mihaada wal jibaala awtaada wa xalaqnaakum wa azwaaja wa jaalna nawmakum subaata wa jaalna layla libaasa wa jaalna nahaara maasha wa banayna fawqakum sab'an sidaada wa jaalna siraajan wa haaja wa anzalna min almu'saraati maa'an sajaaja linuxrija bihi habban wa nabaata wa jannaatin alfaafa inna yawma alfasli kaana miiqaata yawma yunfaqu fi suuri fataatuuna afwaajan lu mu wax wa futihati samaa'u fa kaana tabwaaba loolu laa soxla woon yàlla ne asamaan dafa bari ay buntu bokk na ci buntu ya arafa moo tax doj ba symbole la waxtaan bee ko dul maye waaye histoire yu bari xewee na arafa su ko defee bës bañ fay taxaw di bésu juróom-ñeenteel ci aj yow mu fekk gàmm bi bëgg nga woor ko xam nga lu tax yonentu nee ne ku woor bésu arafa dañ koy bindal dañ koy faral bàkkaaru at mi ñu at mi ñu génnee mooy 2023 mooy 2000 223 waaw kay at mii nga nekk muy 2004 di 24 bi nga nekk bàkkaar boo ci defagul sax yàlla dala koy jégal ci benn fan boo woor kon kooku fu mu jotati tabaarakallaahu na ko mbokk yi di bàyyi xel am na ñoo xam nag dañuy waajal tabaski bi ba dañ koy fàtte kon arafa mu ngi noonu woor ko lu ñu sopp la waaye du sunna du waajiba bokk na ci yu ñu sopp xaj Babacar woor altine ak alxames fu altine jotee dañoo bëgg nga woor fu alxames jotee dañoo bëgg nga woor bu ci nekk xadis la damal ci sayhul Buxaari yénti al Muhammad dañ ko laaji lu tax nga woor altina daf na yawmun lati wulitu fiihi yawmul lazi nee na mooy bis bi nga xam ne wulitu fiihi ci laa judd kon moom ku fonkoon bésu altine la moo tax woor ko dafa bokk ci yi nga xam ne dañ ko sopp noonu nga koy toppee tabarakallahu ba mat juróom benn koor waaye wax naa la koor yi nga xam ne sunna la wax la koor yi nga xam ne dañ koo sopp mu des koor gi nga xam ne naafila la incha allah soo ma toppee suba ci waxtu wi dinaa la wax lan mooy koorug naafila wax la lan koor gi nga xam ne dafa xaraam pour nga def ko wax la incha allah koor gi nga xam ne dañ koo sip wax la koor gi nga xam ne incha allah dafa war incha allah ni ma la ko digee toppal la ko ba keroog koor gi di jeex lépp lu aju si weeru koor rek danañu la ko indil ci tele bu mag bi waaye ci tabarakallahu programme bu mag bi di waxtaanu koor ci ay Africa in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñaata la amaale